asalaamaaleykum dal leen nag jàmm firndeel bi nga xam ne moom la conseil constitutionnel firndeel ni Bassirou Diomaye Diakhar fay mooy président bu yees bu Sénégal ak it li tukkee ci conseil supérieur de la magistrature moo soxal ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool léegi moom leer na ci bopp yi Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom lañ tabb bees mu nekk président de la république ginnaaw jongante dibéer yi ñu weesu ki firndeel loolu le mooy conseil constitutionnel bi xam le ne ci téeméeri xob yoo xam ne sàndil nañu ko mbër yi nga xam ne ñoo doon xëccoo bopp réew mi luy jege juróom fukk ak juróom yépp moom la ñu ko jagleel tax ba ëttu yéenekaay bu groupe Sud di nekk juróomeelu président bu Sénégal ndax conseil constitutionnel dafa firndeel li nga xam ne moo tukkee woon ci mbañ gàcce gi te kuréel bi nga xam ne moo doon wàññi xob yi siwaloon ko ci àllarba bu ñu weesu kiy firndeel loolu it mooy waa tribune ñuy xamle ni Bassirou Diomaye Faye dafa nar waat talaata bi ñu jëm ci centre international Abdou Diouf bu Diamniadio lu ëpp fukk ak juróomi njiitu réew danañu fa teew Vox Populi di ñu yeggee boobu li xibaar muy xamle ni conseil constitutionnel ni muy siiwal démb ne mooy président bu yees bu Sénégal xamle ne nag du kenn koo xam ne ñëw na ci greffe conseil constitutionnel ngir am looy xarab wala looy jooyanti ci li nga xam ne moo tukkee ci mbeñ gàcce gi suñu naataangoo bi ni ñu fàttali nag ci kanamu conseil constitutionnel ci boppam le président bu yees bi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye narawaat ci ñaari fan ci weeru avril dañuy des ak président Bassirou Diomaye Faye ak kàddu yi nga xam ne moom la dénk Moustapha Guirassy di directeur de campagne bu coalition Diomaye président bi nga xam ne moo doon seen mbër Moustapha Guirassy di xamal waa Vox Populi nii moom daal da ko xamal ni xumbuteef ci boppam la bëggul ci ñaari fan ci weeru avril tekki tekkaara la ci bëgg sàkkuteefam sax nag moo doon ñu amal ko ci biir conseil constitutionnel ndax dafa bëgg kenn baña a fàtteeti bés bi nga xam ne ci la waatoon njiitu réew mi yees bi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye di xamal ba tey Moustapha Guirassy te fi mu toll ni askan wi liggéey rek la ñu sant moom it lu bëree bari lay xaar ci doomi réew mi dañuy des ak cérémonie prestation de serment bu président bu yees bi di Bassirou Diomaye Faye ak le soleil ñoom nag dañuy dellu si ci cérémonie mu jox ci kàddu ki nga xam ne day jàngale ci faculté sciences juridiques ak politique bu université Cheikh Anta Diop di professeur Abdoulaye Dieye muy xamle ni ci atum 1963 la ñu dugal wàllu waatu président ci biir ndey charte réew mi. ci atum 1967 la ñu mën a jàpp ni ci la ñu ko jëmmal bu baax a baax muy loo xam ne dañ ca war a tegu. ñu des ak président bu yees bi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak waa bés bi le jour ñu ñu yéegee waxtaan bu yaatu bi nga xam ne moom la ñu sëkk ak jaayam teg ci di turandooram di Diomaye ndi jaay dañuy gën xam leeg Diomaye président muy xam le it ne Ousmane Sonko ak Diomaye lenn moom bàyyi nañu ko xel mooy li amoon ci diggante Compaoré ak Sankara ci Burkina Faso ñu des ak Ousmane Sonko ndax waa l'Observateur dañ ci samp ab laaj ne nag taxawaay bi nga xam ne moom la amoon ginnaaw gi mu jàkkaarloo woon ak président Macky Sall ndax dañu ko war a fay li mu leble woon bu dee ku jege nga xam ne moo nar a jàkkaarloog Pastef bi nga xam ne daal fi mu toll nii moom lañu dénk lenge yi ci suñu réew ñoom it taxawaay boobu la ñu am bu ñu moyul dana jur ay rëkk-rëkk jëmale ci wàllu institution yi suñu réew ginnaaw Bassirou Diomaye Faye ñu jàll ci beneen mbër boo xam ne yit da doon xëccoo réew mi ci dibeer bi ñu génn muy Khalifa Babacar Sall ak coalition bii di taxawu Sénégal nga xam ne soxal na loolu waa l'enquête rawatina seen ëllëg l'enquête di xam le ne nag jege ne lool jël retraitam ci wàllu langue politique bi li tax mu wax loolu lee mooy ci téeméeri xob yoo xam ne sànni nañu ko mbër yi lim ci jot a am matul ñaar muy samp ab laaj bés bu Khalifa Babacar Sall jógee ci bopp taxawu Sénégal kan moo ko fay wutu ëttu yéenekaay yi ñu xëyandoo li dellu si nañu ci conseil supérieur de la magistrature bi ñu doon amal démb rawatina Abdoulaye Ndiaye bi nga xam ne moom lañ tab bu bees mu nekk président bu cour suprême mu wuutu fa Siré Ali Ba waa bés bi le jour dañu xamal ne Siré aliba day jël retraite am Sud Quotidien ñi ngi xam le ne bu fi mu toll nii moo nekkoon président chambre administrative bu cour suprême di xam le nag promotion bi nga xam ne moom la magistrat bi am tax na ba ñenn ñi di ci yee yàbbi ndax moo ni la loon candidature Ousmane Sonko député bi di Guy Marius Sagna nag jamono bi nga xam ne ci la ñu amal conseil supérieur de la magistrature bi ak lan moon moo nëbbu ci gannaaw décision bi nga xam ne moom le président de la république Macky Sall jël soxal na ko lool. ni mbir yi daal jaarul benn yoon ci yoon mooy jéego bu mujj ci bopp réew mi bu ñu sukkandikoo ci Sud Quotidien ak bés bi jour waa Libération di xamle ne nag ma ki Sall dafa am ay coppite yu mu indi ci magistrature bi balaa muy jugee ci bopp réew mi waa Tribune ak L'Observateur nag di dellu si jëye bi nga xam ne moo am ci quartier benn bu Kolda ndax dañoo fekk ci benn oto foofu lee ñaari xale kenn ki am ñaari at ka ca des juróomi at ñu ñàkk seen bakkan ginnaaw gi Seydina Mohamed Diop ñàkkee bakkanam ci Pikine njabootam nag joxañ nag baaraamu tuuma waa polis takk der yi niñ leen dugale ci seen oto bi nag yóbbu yóbbuwuñ leen ci commissariat d'arrondissement bu Pikine waaye dañ leen yóbbu ci fu lool ci biir technopole dañ leen méttital bu baax a baax ba pare nag di jaabanteeg ñoom ci l'hôpital yi ñu fàttali ne waa dikk ubbi nañ ci ab ngir mbir yi leer dañuy des ci wàll yoon ak mbirub Oumar Sow bi nga xam ne ministre conseiller la ci pale de la République brigade bu conk ñoo ko woolu woon waaye ci mujjanteel ga bàyyi nañ ko mu ñibbi mi ngi am ginnaaw xeex bi nga xam ne moo amoon ci diggam ak Ousmane Yara ñu jeexale ko football ci Europe jongante bu am solo ci diggante Marseille ak Paris Saint-Germain waa SAD di xam le ni it City Arsenal moom fi mu toll nii dañuy xëccoo raw gàddu bi Liverpool moom mi ngi toog ci rukk bi di seetaan dañuy des ak jongante diggante PSG ak Marseille ak waa record liman taxawaay bu am solo la ca nar am waa record di dellu si bisub Tëngéej FC yoo xam ne daal dañu ko sànni ay xeer Tëngéej FC di ko ñaawlu bu baax baax te it weetuñu ci bu ñu sukkandikoo ci record ndax waa Dakar Sacré-Cœur it ñu ngi leen ciy jàppale lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyee ndool yéen doog jàmm Bonjour. La confirmation de l'élection de Bassirou Diomaye Faye comme cinquième président de la République du Sénégal par le Conseil constitutionnel et les nominations lors du Conseil supérieur de la magistrature intéressent la presse parue ce jour. le Conseil constitutionnel a officiellement proclamé Bassirou Diomaye Faye vainqueur de l'élection présidentielle du dimanche 24 mars dernier avec 54,28% des voix. Aucun de ses adversaires n'a contesté les résultats provisoires annoncés le mercredi 27 mars dernier par la Commission nationale de recensement des votes, ce qui pousse le confrère de l'avenue Bourguiba à écrire c'est officiel, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est élu cinquième président de la République du Sénégal. Avec constitutionnel qui a validé hier la victoire du candidat de l'opposition après l'examen des documents transmis par la Commission nationale de recensement des votes. Le Conseil constitutionnel officialise l'élection de Diomaye, confirme Vox Populi. Aucune contestation n'a été déposée dans les délais au greffe du Conseil constitutionnel, soulignent les sept sages qui devront recueillir son serment le 2 avril prochain. Tribune affiche ce matin à sa une Bassirou de la République le confrère de renseigner que la prestation de serment est prévue mardi au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio et qu'une quinzaine de chefs d'État est attendue à cette cérémonie. Le juge des élections intronise Diomaye, informe l'info. Le Soleil se propose de nous retracer l'histoire de la prestation de serment du président de la République, une obligation solennelle, selon l'enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD, professeur Abdoulaye Dieye, c'est en 1963 qu'a été introduit le serment dans la Constitution et ce n'est que plus tard en 1967 que la formule elle-même sera inscrite dans la Constitution. Restons avec le président Bassirou Diomaye Faye avec les révélations de Guirassy, le directeur campagne de la coalition Vox Populi. Pas de folklore le 2 avril, il a exigé que cela soit très sobre dans l'orthodoxie et voulait que cela se passe au sein même du Conseil constitutionnel. Toujours d'après Moustapha Guirassy, le président nouvellement élu veut que la cérémonie de prestation de serment soit un électrochoc et d'ajouter on a déjà jubilé, le peuple attend de nous qu'on travaille, lui a dit le nouveau président. Mais le président aussi va être exigeant vis-à-vis des Sénégalais souligne Moustapha Guirassi, le directeur de campagne de la coalition Diomaye Président. Restons avec le cinquième président du Sénégal avec Bossuit le jour. Il nous propose cette interview avec l'oncle et l'homonyme du président Diomaye, raconte Diomaye. Il revient en détail sur ses relations avec son neveu et de préciser que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont conscients du syndrome Compaoré Sankara et d'ajouter que la grâce dépendra des premières décisions qu'ils vont prendre. Restons avec Ousmane Sonko justement avec l'Observateur qui s'interroge opposition radicale, faut-il rendre l'appareil à Sonko si l'opposition use des mêmes méthodes que le PASTEF on pourrait avoir une crise institutionnelle. Après le candidat vainqueur à la présidentielle Bassirou Diomaye du place à un autre candidat, Khalifa Saleh Tahaou Sénégal, avec l'enquête qui estime qu'il fait face à un casse-tête du renouveau. Le confrère de rappeler que crédité de 1,56% des voix lors de la présidentielle, Khalifa se rapproche de la retraite et de s'interroger après Khalifa qui pourrait incarner le leadership au sein de Taxawu Sénégal. Intéressons-nous à présent au Conseil supérieur de la magistrature, qualifié de dernier coup de Macky par le quotidien du groupe Sud Communication Sud Quotidien. Excite Siré Aliba, le nouveau président de la Cour suprême se nomme Abdoulaye Ndiaye, ci-devant président de la Chambre administrative de cette haute juridiction. La promotion de ce haut magistrat qui avait invalidé la candidature de Ousmane Sonko fait déjà grincer les dents. Le bouillon député Guy Marius s'interroge dans les colonnes de Sud Quotidien sur le timing, mais également sur les motivations du président de la République Macky Sall qui doit quitter le pouvoir le 2 avril prochain. D'après Guy Marius Sagna, c'est une nomination anticonstitutionnelle d'un président sortant à quelques 72 heures de la fin de son mandat pour le récompenser des services politiques qu'il a rendus. Ce sont les dernières touches de Macky, d'après Bosby Le Jour, avec Abdoulaye Siré Aliba, parti à la retraite. Macky Sall retouche la magistrature d'après Libération. Tribune L'Observateur nous compte ce drame au quartier Ndiobène de Kolda avec deux enfants de deux ans et 5 ans d'une même famille retrouvés morts dans un véhicule. Retour sur la mort du jeune Seydina Mohamed Diop à Pékin avec la famille du défunt qui charge la police selon l'info. D'après la famille du défunt, après les avoir embarqués au lieu de les conduire au commissariat d'arrondissement de Pékin, les agents de police les ont conduits dans les lieux déserts du Technopole et les jeunes ont été torturés et mis dans un piteux état avant d'être trimballés d'hôpital en hôpital. La presse parue ce jour informe que le ministre conseiller Oumar Sow, qui a été convoqué à la brigade de Thiong, a finalement été libéré suite à sa bagarre avec Ousmane En sport, Sad, le quotidien du sport, s'intéresse à l'Europe avec le Classico Marseille-Paris Saint-Germain déséquilibré et City et Arsenal pour le titre au moment où Liverpool guette. Liman est dans la ferveur du Classico d'après record qui s'intéresse également au bus caillassé à Pékin avec Tenguet FC qui dénonce et Dakar sacré Solidaire, c'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.